Anyways.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 way ba leen dàq gi moo tax collectif boobu gannaaw bi ñu seetee Alioune Tine di président Afrikajom Center diis ko seen jàngoro dem seeti Eliman Diouf di secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes dis ko seen jàngoro dem nañu seeti Seydi Gassama mi jiite Amnesty International Sénégal tamit dis ko seen jàngoro gannaaw daje yooyu nag Alioune Tine Eliman Diouf ak Seydi Gassama nee nañu dinañ def lépp ngir ñu dajeek seen ministre tutelle di Birame Souleye Diop Birame yoo jëlaat leen waay ngir ñu mën a waxtaan fexe ba trouver terrain d'entente bakkaaraankat licencié yooyu mën a delluwaat ci seen bérébu liggéeyukaay collectif boobu tamit bokk na ci li ñuy réclamer mooy sept mois de paiement fonds commun ak cinq mois de salaire yi ñu leen ameel fi mu ne nag nee ñu seen boolu mu ñu kaay fees na moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax élection nag feetu démocratie la waaye suñu politiciens yi soppi nañ ko def ko champ de bataille ma ne violence bi am ci élection yi jéggi na dayo laa wax violence verbale kaddu yi ñaaw di génne fu ne violence physique paaka yeeg jaas daqante ñu naan deete waaye yi te konte ñi naan génne leen jaas yeeg paaka yi xeex ñii dekkalaat gatsa gatsa ay karawaan yu ñu dogaale xeex bi mel ni tuleeg male ay seesu parti bu ñu lakk ak ay cocktail molotov ak suñu réew mi fi mu jóge xat-xati réew mi nekkoon ba juróom ñett fukki bakkan ak lu topp daanu ci ba léegi suñu politiciens yi ñu ngi wéy di foye bakkanu nit ñi ñaata bakkan na dëdd ci xeexu politique ñaata ñoo ci laggi ba mënatuñ seen bopp dara ñaata lañ ci yàqal seen liggéey ñaataa ci dem kaso ñaataa ci dogoo dootuñu tuddante ma ne nag bas doy na sëkk laa wax suñu politiciens yi dañoo war a xam ni politique du yëfu barbarie te nag almet bi ñu jox politiciens yi ñu koy foowee bis buñ ko nanguwul ci ñoom bés dana ñëw ñu kos boyal réew mi ndax irresponsabilité bi foo kon natti rek jéggi na dayoo kon nag attention moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax ki nekkoon ci tiktok bi doon saaga Amina Poté di ko sosal ma ne teg nañ ko loxo wax waaw góore waay division spéciale bu cybercriminalité ñoo def lu ni mel gannaaw plainte bu nga xam ne Amina Poté ci boppam moo ko déposé influenceur boobu nag di administrateur compte TikTok bi nga xam ne ñu ko tuddee juge du désert ma ne teg nañ ko loxo laa wax di ko toppee injure maanaam saaga diffamation sosal ak diffusion d'images à caractère obscène maanaam jël ay image nit yu bon am di ko wili pande way way way mim réew ku jóg ne influenceur nga influenceur boo xam ne fen saaga sos wili pande gor ku ko ci bàyyi wut gaañaan fi nii rek mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz